la situation des artistes je que ne amuñu problème entre ñoom boo gisee tey ñu fi toog ñëpp ñi fi ñëw wax dëgg fa problème wala boog bu ñu amee ay problème tamit du ñu ko fësal euh, public bi mooy alimenté yenn yenn yenn wax yi mooy alimenté yenn yi peut-être amaana daf leen di yëngal wala daf leen di dugal mais c'est plus du côté du public et du côté du des fans parce que ñoom da ngay gis ñoo xamante ne ay fanatiques lañ donc dañuy bëgg OMG ba du ñu bëgg ku wax dara OMG bu ñu waxee kenn dara OMG rek dañuy xeex dañuy xuloo alors que je pense que le message qu'on devrait lancer ce n'est pas ça c'est plutôt un message de de de paix et ñun tamit suñu wàll mooy problème bu amee dañu war a génn calmer le jeu je que loolu tamit yoon la bu fekkee dañu gis problème ay tension am c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités et de parler avec nos fans calmer le jeu waxtaan ak ñoom ne leen ah bàyyi leen euh, xuloo bi bàyyi leen xeex bi parce que jaru ko man du ma nit boo xamante damay xuloo donc ne le parce que du sama reflet ñun am nañ ci part de responsabilité te loolu lañ war a def aussi surtout yi solo amul njëriñ donc te loolu moom wax naa la ko léegi nee naa la c'est plus le public le public peut-être ak certaines yoo xamante ni ñu ngi ci réseaux sociaux yi di wax doo mës a dégg artistes yi génn di wax mais man peut-être amaana lenn rek laay wax artistes yi suñu mënee génn wax ak seen i fans booy wax waxal ak say fans ñu kal nga calmer la jeu nga wax leen que ne li ñuy def amul benn sens nañ xool yow ni ngay doxalee yow kenn dégguloo ci dara kenn doo histoire doo xuloo doo xeex donc noonu nañ comporté woon noonu eneen bàyyi nañ comporté woon noonu eneen bàyyi euh, affaire yi ñuy def noonu